waaw xoolee lii rek yéeme na fii ci amee doon mën a ngi si jàll jàll boo ko jàll bu fële kabaraaw fii defal ndànk ci biir ban mi ngay dugg de ci biir nit ñi <laughs> sooy kaay kaay kaay di dagg may may may caméra del dagg may caméra xool leen lii xool lii seen bedd yi taa ñu bënn ko ndox bi di ñëw ci armée xool lii seen bedd yi di taa ñu yaay caméra ba mu leer xoolal seen ñu bënn ko affaire yu dugg ci biir ci biir armel yi yéen gis yaa ngi gis armel yaa ngi gis soo yàlla yéen doot doot doot leen ko doot leen ko xoolal yii ñoo ko bënn ñu gis na ñii ñoo ñàkk xalaat def ñii ñoo bon lay laat kay dagg kon li ñaaw trop li ñaaw trop billaahi mbedd yi taa nga bënn ko pour ndox mi di ñëw ci armeel yi lii lii xam nga rëbëtu lii lii man la ngeen fàttali ne ay nit ñoo tëdd fii bën bën yi kenn xamul lu mu toll lépp ci biir ci biir armée bi ñaaw na ba si kanam yàlla rafetul dara léegi yaa ngi gis bàmmeel ni mel bàmmeel day taa ndox bàmmeel yëpp bënn yëpp xar na koy nii voilà bàmmeel yëpp ngi taa léegi am na bàmmeel léegi ni mel ñaaw trop ñoo saltay jëf barki alxuraanu karim yàlla ci dañuy def dara baa mi lii yëpp ni chef de quartier war na ci bàmmeel yi yëpp yàqu na ndax ndoxum ndax ndoxum xam nga it yi ñuy salte nan de ndox mi dong la alxuraanu karim ñi dañuy xaru lii di barke yàlla ku ma ko waxoon du du gëm lii ma ko mën na defi peel kay faaw nga kii lii